الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أيها المسلمون هؤلاء هم المرحومون في كلام الله عز وجل mbokk yi ñu ngi santaat sunu borom subhanahu wa taala moom mi yelloo ak cant di julliwaat ci sunu yonent muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaanaat sunu borom yal na yàlla delloowaat xeet wi ci diineem gën di dellu sabab yi yàlla tudd ci alquranil karim ne sabab yi lay mayee yërmande ñu ànd jàngat li nga xamante ne moom mooy sabab yooye bi ci jiitu moom mooy al billah gëm borom bi subhanahu wa taala ci mbooleem li maana al imaan yàlla mu ngi wax ci suuratu nisaa ci laaya téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom fa amma alladina aamanuu billahi waactasamuu bihi fa sayudxiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdiihim wa yahdiihim ilayhi siraatan mustaqiima yàlla mu ne ndaal ñi nga xamante ne ñoom ñoo gëm yàlla waaye waatasamu bihi ñu moy ci yàlla mooy waatasamu bi xablillahi jamia ñu moy ci buumub yàlla gi te mooy la ilaha illa allah yàlla mu ne ñi mel nii de man yàlla dinaa leen duggal ci sama bi yërmande dinaa leen defal ngëneel waaye dinaa leen gindi teg leen ci yoon wi nga xamante ne moom mooy wi gën a jub ñaareel bi ci li ñuy jural yërmande fii ci aduna balaa allaaxira di jot moom mooy taatullahi azza wa jalla wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam jël yàlla akub yonantam def leen sunu royuwaay jiital leen ci sunu mbir yépp te mooy seeni ndigal ñu koy attewoo def ko sunu kanam yàlla muy wax ci suuratu ali imran ci laaya téeméer ak fanweer ak ñaar وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون am ndax yërmande ngeen soxla ñu ne ko waaw mu ne topp leen yàlla te topp yonent bi yàlla bi bokk na ci jural li ñuy jural yërmande mbokk yi ba ñu mën a génn ci jafe-jafe yu nu met yu nu yu nu yu nu nekkee yi ba ñu mën a génn ci crise yi nga xamante ne tey moom la nit ñi di jooy mooy ittibaaul qur'aani wal amalu bi jëfe alquran topp alquran ak di ko jëfe borom bi subhanahu wa taala mu wax ci suratu an'am laaye téeméer ak juróom fukk ak juróom وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون amu ne lii وهذا لي kitaabun ab téere la woo xamante ne ñoo ko wàcce kon nag dégg leen ko walla topp leen ko te ngeen ragal amaana yàlla defal leen li nga xamante ne moom mooy yërmande dina metti lool ci jamono yi weesu te yàggul dara amul ñetti semen ab kilifa wu ñuy joxoñ ci wàllu diine lu tolloog lu bari ci ay nit di ko déggal di topp ndigalam mu ne adduna bi kat nee nañu ñu ngi jooytu li nga xamante ne moom mooy crise gi leen dal naam crise bi sax bokk na ci lekk gi ñuy lekk riba waaye mu ne lekk riba boobu su fekkoon ne ñoom bëgg nañu yonent bi riba bi du leen yàqal dara mbokk yi àndax lii mooy li ñu war a gindee aw xeet ci ñu génn ci topp lekk riba war a def li nga xamante ne mooy ndigalal yàlla kon loolee wax la woo xamante ne wax wu juuyoog dëgg la bokk na ci li ñuy jural yërmande fii ci àdduna ba ñu mën a génn ci sunuy jafe-jafe moom mooy di déglu alquran di ko settantal di ko jàng sunu borom muy wax ci suuratul Aaraaf laaya ñaari téeméer ak ñeent wa ida quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun mu ne sunuy jàng alqur'an déglu leen te ngeen settantal lu ngeen di déglu li ndax yàlla defal leen yërmande bokk na ci li jural ñu am yërmande fii ci aduna mooy ñu bëri lu ñuy jéggalu suñu borom parce kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi wax ne man lazima al istigfaara jaala allahu lahu min kulli hammin maxraja képp ku taqoo di jéggalu yàlla jafe-jafe boo dugg yàlla génnee la ci sunu borom mu ngi wax ci alquran alkarim qaala ya qawmi lima tastacjiluuna bissayi'ati qabla alxasana لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون muy Saalix bi muy wax ak ay mbokkam mu leen de su fekkoon ne dingeen ngeen di jéggalu seen borom comme seen borom dina leen defal li nga xamante ne moom mooy rahma te moom mooy yërmande juróom-ñaareel bi ci li ñuy jural ñu am yërmande aduna ak ci àllaaxira moom mooy at taqwa ragal borom bi subhanahu wa taala mooy def ndigali yàlla waaye ala nuurin min allah la def da nga koy tibbee ci njabal alquran ak sunna nga cay yaakaar yërmandeg yàlla waaye bàyyi tere yi tere ya ngay bàyyi tamit du koy tere wala diwa koy tere waaye alquran ak sunna ñoo la koy tere nga bàyyi ko di ci yaakaaree duggal la li nga xamante ne musal la ci safaram loolu suñ borom subhanahu wa taala mu wax ci alquran alkarim suratu araf aaya juróom benn fukk ak ñett aw ajibtum an jaakum dikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyundirakum wa litattaqu wa laallakum turhamun mu ne kon ah, ragal leen seen borom déglu ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen di waar di leen wan alquran ak sunna ko defee seen borom defal leen li nga xamante ne moom mooy yërmati bokk na ci liy jur liy jural yërmade jaam bi moom mooy assabru inda al mooy jamono yi jafe-jafe yi ñëwee ñu àndandoo muñ ndaxte kat yàlla dafa ne wattaqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xaasa mooy li olof di firi wax ne ay du yem ci boppu borom yàlla mu ne ragal leen fitna su fitna ñëwee du dal ñi nga xamante ne ñoom dong ñoo ko sabab waaye day lan day jëlaale ñëpp kon tey même su fekkee ne ñenn ñi ñoo def ànd ak su duma yu ñëwee ñoom day lamboo li nga xamante ne moom mooy ñëpp sunu borom subhanahu wa taala mu wax ci suratul baqara aya téeméer ak ñaar mu ne man yàlla dinaa leen nattu leen ci xiif ak mar ak wàññiku ci bakkan yi ak wàññiku ci li nga xamante ne moom mooy jiw gi te moom mooy crise économique gaa di jooytu waaye mu ne bégalal muñkat yi te mooy alladina ida asaabathum musiba mooy ñi nga xamante ne sunu amee jafe-jafe qaalu dañuy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun de yàlla moonu moom te ci moom la ñuy dellu yàlla mu ne ulaika ñi mel nii alayhim salawatu min rabbihim yërmandeg yàlla ak jàmmam dina wàcc ci ñoom wa rahma wa ulaika humul muhtadun ñii daal ñoom ñoo ñu jub bokk na tamit ci li nga xamante ne moom mooy moo ñuy jural yërmande googee moom mooy aljihaadu wa hijratu fi sabilillah jiyaar ci yoonu yàlla ak hijra ci yoonu yàlla te hijra dëgg-dëgg suñ ko waxee mooy nit ki gàddaay li yàlla araamal ci moom dëkk ci li nga xamante ne moom la yàlla daganal ci moom suñu borom subhanahu wa taala mu wax ci suratul baqara إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم والله غفور رحيم borom mu nekk naka ñi nga xamante ne ñoom ñoo gëm ba pare gàddaay ba pare di jihaad ci yoonu yàlla mu ne ñooñee nañu yaakaar yërmande yàlla mooy am nan mu ne moom yàlla daal mooy jéggaale kon kii moom mooy arrahim kii yërëm ay jaamam bokk na ci li ñuy génnee sunuy jafe-jafe tamit ba tey mbokk yi mooy al infaaqu fi sabilillah mooy ñu jël sunuy alal di ko def ci yoonu yàlla sunu borom subhanahu wa taala mu wax ci suratu al a'raf ci suratu tawba wa min al a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil aaxiri wa yattaxidu ma yunfiqu qurbatin inda allah وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم sunu borom mu ne am na ci ña dëkke woon ca kaw ga ñoo xamante ne dañoo gëm yàlla gëm bisu penc waaye wa yattaxisu ñuy jàppee maa la nga xamante ne yunfiqu moom la muy joxe ci yoonu yàlla di ci wuteelan qurubatin inda allah ngir jegee ko yàlla waaye tamit wa salawaati rasul di ci sàkku yonent bi ñaanal leen yàlla mu ne ala innaha qurbatun lahum nañu xam ne loolu dina leen jegale yàlla su ko defee fa sa yudxiluhum sa yudxiluhum allahu fi rahmatih yàlla dina leen duggal ci yërmandem bokk na ci liy tax ñu génn ci jafe-jafe yi mooy al islaahu bayna al muslimin defar diggante jullit ñi islaahu zaati l bayn defar diggante yu yàqu yi fu dog-dog am ñu jokk ko sunu borom subhaanahu wa taala mu wax ci suuratu lxujuraat aaya fukk innama almuminuuna ixwatun fa aslixuu bayna axawaykum wattaqu allaha laallakum turxamuun yàlla mu ne innama almuminuuna naka jullit ñi ixwatun ay mbokk lañu wala ñoom dong ñoo di mbokk mu ne kon nag yéwénal leen bokkoo googee da ngeen ragal yàlla la laallakum turhamun ndax yàlla defal leen euh, defal leen yërmande kon mbokk yi jafe-jafe yi nga xamante ne tey moom la jullit ñi di dund ba mu jar lenn ci ay réew ñu yëngu ba fexe ba changer nga xamante ne moom mooy pouvoir yi fa nekkoon naam loolu la mu gis ne amaana moom mooy changé jafe-jafe yi waaye loolu changé wul jafe-jafe lay changé jafe-jafe yi kay mooy ña jiiteeg ñañu jiite ñëpp ànd dellu ci seen borom subhanahu wa taala lii dong moo mën a tax ñu mën a am jàmm loolu dafa wuuteeg lay xew ci dëkku yéefar ya ka xas ba weddi moom laa zamba baada al kufr bàkkaar amatul ginnaaw ak weddi kookee mën na nekk ci xewal gu sax waaye yow jullit bi yow la yàlla di natt moo tax soo xoolee yëngu-yëngu yooyee yëpp génnul ci li nga xamante ne moom la tuddee al aalam al islami muy dëkk yi nga xamante ne dañuy wax ni ay dëkk jullit lañ kon bokk na ci li ñuy jàppale ci ñu am li nga xamante ne moom mooy euh, yërmande googee mooy al itilaafu wal jamaa ñu bennoo nekk benn mbooloo suñu borom subhanahu wa taala muy wax ci alquran alkarim walaw shaa rabbuka la jaala annaasa ummatan waxidatan wala yazaaluuna muxtalifin illa man rahima rabbuk mu ne su sooboon sa borom kon nit ñëpp dañ doon nekk genn xeet waaye mu ne duñu dañ di wuute kon nit ñi ñoom dañuy wuute illa man rahima lu dul ña nga xamante ne ñoom la yàlla def ci ñoom yërmandeem ñooñu ñoom dañuy bennoo waaye mbokk yi lan mooy benn ndax bennoo mooy nit ñi nekk fii ñëpp ñu nekk benn mbooloo tuddee suñu bopp benn tur déedéet bennoo mooy ñu ànd bennoo ci di tibbandoo ci alquran la ñuy def di tibbandoo ci alquran la ñuy bàyyi loolu mooy bennoo moo tax aljamaa maa waafaqa alxaq mbooloo mooy la dëppoog dëgg wa in kunta waxdaka même su fekkee ne yow dong nga ca nekk te yaa nekk ci dëgg moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ci jamonoom njëkk kenn di ko gëm moom jamaa la woon ndaxte moo nekkoon ci dëgg yàlla bi muy tagg Ibrahim dafa ne inna Ibrahima kaana umma aw xeet la woon mbooloo la woon ndaxte moo nekkoon ci dëgg kon daal dëgg mbooloo tegul ci bëri euh, ay bopp teguwul ci yaatu waaye mu ngi tegu ci tege ci li nga xamante ne moom mooy siraatul mustaqim euh, mbokk yi bu mujj ci yooyee mooy ñuy ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala parce que adduaau silaaxul mu'min ñaan moom mooy ngànnaayu jullit adduaau huwa al ibada ñaan sax mooy lépp jaamu yàlla kon nanu delluwaat tàllalaat sunu borom tàllalaat sunu loxo jëme ko ci sunu borom wan ko sunu néew doole wan ko sunu tële wan ko sunu ñàkk ndax moom yàlla mu génne ñi sunuy jafe-jafe yi su ko defee duggal ni ci li nga xamante ne moom mooy yërmande allahumma arhamna rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lilmuslimina yawma yaqumu alhisab ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين يوم يقوم الحساب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم watub alayna ya mawlana innaka anta tawaabu rahim yal na yàlla delloowaat njiital jullit ñi ci seen diine gën dik dellu yal na leen yàlla xiirtalaat ba ñu xamaat dëgg-dëggi alquran ak sunna su ko defee loolu puuse leen ñu yëg na lii dong moo leen mën a génne ci jafe-jafe yu nu mel yal na nu yàlla delloowaat ci diine gën ji rafet ak diin ak dellu allahumma ruddana ila diinika maraddan jamila allahumma aslih shabab al islam allahumma aslih shabab al islam